ci dee tàbbi aljana Maodo ne sunu tariixa bi ku ci dee tàbbi aljana yëngu leen tariixa Cheikh bi ku ci dee tàbbi aljana Kawlax tariixa Cheikh bi ku ci dee tàbbi aljana waa Mbuur tariixa Cheikh bi ku waa Mbuur tariixa Cheikh bi ci dee tàbbi aljana ah yóbbu say jabar yóbbu say doom ana waa Kaolack yóbbu say jabar yóbbu say doom ci diin sët yi góor yi jur diin ku la may jabar koo ca may jabar amu tàbbi diina la ak ndey ak baay ci diin fonk ndey ak loxo ca kaw eh fongo ndey ak ba ku yaay fongo ndey ak ba ci diina na dimbale yaayoo booyoo bul di jànni yaay bul di xeelu sa ci diinal yàlla yàlla kenn la la yàlla kenn la yàlla yàlla mooy maye eh, boo amee tuuti loolu yàlla la boo amul dara loolu yàlla la mooy joxe billaay yàlla mooy xañe yàlla mooy joxe billaay yàlla mooy xañe soo amee tuuti loolu yàlla la moom sayduna ye muhammad rasulullah ma aw siise damay wéy yonent yàlla muhammad fii ci Sénégal ku ko bëgg dégg da dem Kaolack ma wéy ko ci anglais ak allemand ak espagnol gars toppandoo ma ma bàyyi français yi may leen ko bàyyi anglais yi may leen ko nekkaay leen fekk ma ci créole te li may làkk kenn mënu cee dindi virgule yéen kilifa yi toog créole yi ne boo bëggee Seydouna Muhammad loo mën a ñàkk ci àddunam ñàkkoo dara si bu te di fàtte di tout di bu ko fat fàtte prophète bu ko fat fàtte nada nenen ne neen bi si ma seyduna muhammad ne ken ki paas si ma seyduna muhammad ne ken ki piste si ma seyduna muhammad ne ken ki sta beng ana ñi bëgg seyduna eh, muhammad rasulullah ma wax ko yonent muhammad ci anglais créole manel ko ci espagnol ken du seyduna muhammad que quieres cantar al mejor de las criaturas. Seyduna Muhammad, quien permite que Dios invente el mundo. Seyduna Muhammad, el cielo, el sol y el medio ambiente y todo lo que existe en el mundo. A Seyduna Muhammad estoy cantando a El nació a Mata, quien fue éducado émour yoo amadina ma ñëw wax yeneen ci Yàlla Muhammad ne ko billaay kenn du niroog moom kenn du mel ni moom boo ko bëggee tëddal nelaw ndax booy dee dem aljana may bëgg a ki nga xam ne damay bàyyi foofu ñëw wéy ki nga xam ne boo tukkee ci réew mi suba boo demee tukki suba nga dem marché mbuur mbaxana mu waay sol fii ci tànt bi boo demee suba marché mbuur fekk ñu koy yenoo géej ak geccax ak yéet ba mu des bële carré benn yenu kat du ko yenoo géej yële yéen doomi soxna yi anun bunu sàggana ji aji jëf wax dëgg dana ji kon yéen bunu sàggana ji lii ku ci sàggana ñoo dem ci sàggana sunu guddi gi sunu guddi gi guddi salaam gi GFM ñoo organisé guddi yonent bi GFM ñoo organisé guddi yonent bi nit ki yor soo xaram bàyyil mu dem soo xaram nit ki yor soo xaram bàyyil mu dem soo xaram seytaane du xarit bu mu aw awal fàcce des ku la bëggul di la wër dal fexem soriwul ay ñu nit ki mën naa la bés te defoo ko lu mën a wax ay ñu nit ki mën naa la bés te baloo def mu sànni ca bàyyi ko rabbana te xam ne bésam dana